Cer euh, comme ni ma ko waxee léegi rek dafa mel ni li mu tudd Soriba. Soriba ah euh, Soriba dafa mel ni gars yi instant euh, nañu comme déjà gis nga mën naa ne seen réaction ñoom ñi nga xam ne mën naa ne ñoo dëkkee ci fi nga xam ne moo di ñàkk bi gi nga xam ne mën naa ne moo di Passissé gis nga Baye Fall ñoom ñëpp ku ci nekk rek lu ma ko waxee du ñàkk ne kii di Passissé am na secret boo xam ne mën naa ne tey jii ma ngi koy amal fii nga xam ne mën naa ne moo di ci diwaanu Mbour rawatina fii fii fii mooy fan ci Mbour Cheikh Ah, mooy mag ndaw ah, ñëpp mën nañ génn nañu am ci aspasef bu baax a di topp la nga xam ne mën moo di ah, kankuran ak Sorouba bi dèjà kankuran gis naa ñaar génn na am na benn bu jaar benn côté bi am beneen jaar côté bi dama ci gis Mbappé yoon Mbappé Euh, mën naa ne euh, bokk na ci ki ma gën a neex euh, fii nga xam ne mën naa ne moo ci doon buur moo tax man su ma ñëwee rek toujours ngay xool Thiès depuis démb ba léegi maa naa la Mbappé kañ lay génn Mbappé kañ lay génn parce que rapidité ak mën dawam man dafa maa jaaxal ba léegi mais waajee ne am na benn waaju taxaw ni la ci kaw rond point bi gis nga nga koy gis ne mu ci kaw yaa ngi gis waajee ci rond point bi Thiès ak ndaw ñi déjà ñoom ñëpp ñu ngi koy wër euh, pour euh, ñu waajal tëgg bi euh, ndaw ku ci mën a fecc tamit aussi nga fecc booy ñu doon doxi suñuy soxla rek ñu àndandoo ñu taxawee jeer ngeen soo xool gars yi bi sax dañ koy bañ mais mais Sénégal instant Dakar midi ni ma koy waxee rek chaque instant compte moo tax loolu waral ni mais Cheikh dafa mel ne baa ngay génn man Cheikh wàccal keer nga braquel ma nii Cheikh Cheikh kankurang bi day waaj a génn man samay Thierre bi ma gisee mën a daw lu leer laa la nag damaa mën a daw dinaa la tey say tey samay tig tig laa laal de. Hmm. damaa pare de. damaa pare fépp. nee naa la du ma may dara. Hmm. loo daw benn danaa ko daw fa ko ndax euh, euh, kankurang yi daaw jéeg moom mën naa ne ñamal nañ ma si. Hmm. ñam naa si ñaari jaase moom wax dëgg fa neex yàlla mu métti ma nag. xaw ma nan laa koy fajee bu doon démb dooma dooma dooma dooma dóorati de. dama laaj ñee ñee ñaa nga laaj nga laaj ñi nga xam ñooy seetaan si. waaw ñu ko ñuy seetaan si loolu du ñàkk. mais Thierry instant yii man sama fit a moo tax instant yii mënu ko maa laal li may gisee may waxee nii sama fit daa dalagul. waaw parce dëkkuma fi. Ah. mais sama fit bu dalee rek yow man danaa la foral koo bëgg ma foral la ko mais xoolal ma xale yi di nga fi gis nag ay ay ay mool nag du si ñàkk. ay xale mool da nga koy gis mais ama lii daal xëy muur c'est extraordinaire man lii xaw ma nu mu toll cher. mais ah lël bi moo nekkee lël bi moo nekkee yoon dafa mel ni booy taaw dañ fi bëri ak jaay préeg yeeg naan di tey ak booy zembre maani daa mel ni ñoom ñëpp daal ñëpp ñëpp booy zembre daal ñëppay ñëw kenn desul cher li xew Mbour doy na waar mais encore une fois euh, nañ leen bu baax a baax rek déjà gis nañu li jot a xew ci wàllum ndax lu muy dugal si économie ndax lu muy dugal économie bi Mbour dafa rëy jaay jaakatu gerte bi da si gis boppam jaaykatu ndox bi da siy gis boppam jaaykatu tàngal bi da siy gis boppam jaaykatu café Touba bi da siy gis boppam kon li dafa fekk dafa nekk loo xam ne aada la chaque septembre su commencé mooy le premier ba le vingt huit wala ba le trente sax euh, li nga xam ne képp koo xam ne mooy doomu mbuur la képp koo xam ne mooy doomu mbuur la ni nga ñibbis am benn pa li muy faral di wax rek maanaam fekkee na nga takkoon jabar mbuur septembre jot uh-huh. septembre jot da nga war a da nga bàyyi mu ñëw sinon sa sëy bi su rek si yow la waaw ah, mais xam nga man fi may waxee rek mooy euh, euh, cadre immigration clandestine déjà gis nañ li jot xew Mbour mm. ñu ca bëri nee nañ kankuraa doo am wala affaire yooyu parce que ndaw yi nga xam jot na cee dee parce que bëri nañu lool euh, nañu gestuwaat ñi nga xam ne ñoo dëkkee fii ci diwaanu Mbour c'est très important ñu wax loolu noonu nañ leen gestuwaat bu baax a baax a baax xool si lan lañ leen mën a jàppalee ci wàllu cadre emploi ci cadre bi yëpp ñu xool nañ leen mën a tegee loxo parce que da ciy bokk parce que tey yi gaal jël ko du aspexe jël gaal gi ne dangay ngay tukki euh, du loo xam ne mën naa ne lu jaar yoon la mais ñoom as ay lébu lañ ci digg ñàkk tàng la ñu dëkk moo tax ñoom gaal la ñuy xam mais dañuy jéem a créer loo xam ne tey jii ndaw ñu ku ci gis vraiment boo si jàppee rek wax dëgg fa neex yàlla doo a ngay jël euh, la nga xam ne mën naa ne moo di gaal encore une fois dañuy ñaawlu loolu rawatina euh, ñun ñi nga xam ne ñoo di ay sénégalais lam daa te képp gis tamit ma ngi koy ñaawlu bu baax a baax mais Cher gis nga waajooj noonu moom dafa mel ne am na yat la yor xaw lu mu yor noonu gars yi ñàng nga gis Cher yow gars yi gars yi cher gars yi ñàng ngay gis noonu gis nga ko man xaw ma lu yor noonu ma ngay tàllal di dem noonu nag xaw ma kat ma ko tooñ mais mais bu la dóoree yat boobu moom wax naa ne da wàcc liggéey lu leer daa lay wax nag ndax gars yi nee naa la façon déguisement ay tik tik façon bu ne kii moom lu yor man daan daa xaw a di roog as jaase mais du jaase moom as dénk la rek mais doy na waar doy na waar waa Mbour ku si ku si sangu sañse teg nga tik wala teg nga xam mooy teg nga xam mooy yeneen chaussures pour ñu mën a daw li nga xam mooy kankurang dafa am li daw kankurang léegi la man sama daal yi ma sol dawul kankurang mais la lay xool da nga xool ci kaw ba ci suuf nga xam ne dëkkuma fi uh-huh. ñi dëkk fii ni ci digg ñànkatang da leen xoolee xàmmee leen mais dañ leen di nangul li ni mel mais bu fàtte waa Mbour kase waa Mbour kase moomuñu kankurang la waa Dakar waa bitim réew waa ñëpp ñëw mais sànq yaa ngi dégg uh-huh. waajee lu mu wax sa sa xarit bi dafa wax lu am important nee na mm. yamal fi nga war a yem mhm. nga réglé loolu da am important mhm. parce que tey jii nga jóge temps woon xamoo affaire nu demee ko mel ni man rek mhm. nga yor sa téléphone di daan da TikTok wala si na bëgg loo yóbbu bëgg loo feni bëgg a ñëw fii ci diwaanu Mbour loolu euh, moo loolu moo ëpp important moo gën ngeen di ñëw bëgg a dépasser les bornes gis nga mairie ak seen tagal mën nañu ñoom tamit euh, dañuy daw Euh, la nga xam ne moo di Kankura gis nga koo ci gis koo koo ci gis rek koo ci gis rek vraiment euh, ma nga ma nga ogosu garaaw tier ñoom ñoom ñoom ñoom nañ ko nañ ko dund rek garaaw nañ nañ ko nañ ko dund rek liñ naan mbégte mi la instant bii nii comme ni ñu koy waxee rek Thier nañu dund euh, lii di mbégte bi rek vraiment parce que da ci am important que ñu ñu génneel Sénégalais yi ñuy suivre wax leen Kankura yi nu mu demee ak ak daw daw yeeg yooyu noonu tamit nee naa la Euh, dinañu jéem a gën a jege gars yi euh, gën leen a wax euh, dèjà du ñu ak na secret mi ngi fii secret mi ngi mbuur man nangu naa ko xam nga man Thier man yii man yow xam nga ne man lu ma yëngal bëriwut yow xam nga ko bu baax a baax mais bu ma nee secret yi ngi fi rek am na lu fi xew parce que boobu ak léegi mi ngi seer démb surtout démb démb sama yaram dafa daw bi ma gisee ay xale yu ndaw ci taw bi ñu mën a génn naan dañuy topp Kankourang ma ne nii kon ñi Ah, lan la leen waa ji ñamal wala tey jii di waa la moo nekk ci moom bañ koy topp parce que xale bu demee bay topp as mag rek xam naa ne la am na lu mu gis ci moom ba ne naan da koy topp gis nga fambee ne doomam na xoolal ne mu naa ne moo di kankuraa du bàyyi dara doomam la yor rek foofu la ay euh, ñëwaatee ceer mooy secret mi ngi fii secret bi kii du jël doomam ji nii ànd ak moom naan da ngay daw kankuraa gis fi ay kilifa gis fi ay xale yu ndaw kenn naa la kenn desul toute la population de Mbour jug nañu tey yii ne euh, pour xool mm. wala pour daw la nga xam ne mën naa ne moo di Kankura donc loolu mbégte la wax nga ko léegi comme comme da cee feeñ carrément gis nañu jaaykatu gerte gi gis nañu jaaykatu café Touba bi gis nañu euh, keneen a keneen a keneen koo xam ne borom borom maromb koo ngi noonu muy borom koko bi gis ngeen ne borom kerem gaa ngi noonu mm. ay bu yëpp bisaab yooyu noonu xam naa ne bintu meng moom ak euh, sama xarit bi mamita ñoom moom ñooñu dañuy sawar ci ay ay bu yëg bisaab ak yooyu noonu surtout waaw mi ngi noonu xata yooyu xam naa ne day baax ci ci tooy ak yooyu noonu saa yi soxla naa ko xolo xolo xeetu sañse yi mais façon sañse mais ceeb mhm. façon sañse bu ne ngay gis ah, xoolal ma xoolal ma yaay booy ñoom ñëpp gis nga leen bàyyi wuñ de mm, koo ci gis rek mën naa ne xoolal ma nga takku ndeysaan pour ñëw xool exact lan moo xew mbuur surtout li nga xam ne mën naa ne moo di Kankuraay gars yi c'est un plaisir ñu reportage yi yéen ni mel chaque instant compte Sénégal instant Dakar midi donc euh, dinañ toppal duñu bàyyi leen Thierre man nii laa koy defee saa su laa koy defee saa soo xool démb ñu ngoon ca Thiès ñu ngoon ca Viviane ba mais dañu ne Mbour la ñuy ñëw pour wan leen exact lan moo fi xew te lii ñu ko ñu ko ñeemee bëriwut mën nañ ne mais ñun Cheikh instant yi damaa doon salbi te xam naa ne yëgu ko instant bi bu gaa yi damay simmeeku bu gaa jëfaroo damay jëfaroo bu gaa yi solee tik damay sol tik-tik dinaa leen noonu de waaw mais aussi ah, waaw la damaa war a dugalal ah, damaa war a dugalal xam ah. waaw xam lu mm-hmm. ñuy tere xam lu ñuy baax waaw mm-hmm. gis nga xale bu jaarul lool waaw xale bu jaarul lool soo leen gisee da nga leen xàmmee mais mais waaw loolu dama la koy dëggal xam dama la koy dëggal mm-hmm. instant bi may jaay am fit di na man sama a dëggal doomi saalum moo tax fit bi dafa dëgër mooy ba ñuy topp kankurang bi euh, dafa wax ci soose de wàcc leen ci suuf ah. man comprendre man ndeysaan hmm. man daal euh, li gën a jëkke kankurang bi rek hmm. comme ça gis na moom ma ànd ak yow kañ bu kenn da ngeen ne ci euh, ne moom ah. ci digg ñàngatang bi lañ ko fekk ah. waaw mais Baye Fall maa ci digg ñàngatang bi nee naa la Pape Cissé moo moo moo lëbbëjee nooy nooy dundee mbégte bi ak kontaan rek ndeysaan walaay walaay ndeysaan amuñu ko du paay moom parce que dañ ñoo bégal neexal fi yëpp te loolu dañ ñëw ba duñ dugg sax zone bii nii mais paa bi ñëw na nag samp na fii dañuy dañuy wër bilaay daal yaa ma gën a xam daal wax moom mais mais secret bi lan la tey ala gis yaa ngi benn affaire sax benn affaire ci affaire te lii daa mel ne am na lu ci ne am ci biir non kontaan rek dara newu ci dara newu ci dara newu ci mais nga wax dara newu du ñàkk ne dama la koy wax rek pour dire vrai dama xam ne am na lu fi nekk parce que sinon gars yi duñ topp waa ji na dara ñëw si surtout journée dara ñëw ah, day bëgg loo xale yi rek waaw ah, dañuy nii rek ah. dara ñëw ko euh, dèjà kaddu yi nga xam ne mën naa ne yëkkati ko moom ah dem kan la si kan nga bëgg bu kii takk njalabaan bi moom nga bëgg ma këfal la ko waaw kookoy kan salbe la ah salbe la mais moom déguisement am dafa rafet de daa pare de pare na bu yàgg laa ilaha illallah suma waa maa ngi lay nuyu waaw fay bàyyi tey sant Serigne Saliou bu baax mbégte mi noo koy dundee rek waaw waaw di sant rek mm-hmm. di ñaanal paa bu baax ndax maanaam Kankourang moom mm-hmm. boo ci nekkul mënoo ko xam waaw ñun daal ñu ngi kontaan waaw ñu ngi ciy topp mu ngi neex mm-hmm. ñu ngi dund aajana waaw mais gis ne du ñàkk ne am na lu fi xew ndax bu ma gisee mag ndaw xale euh, ñëpp mën nañ ne euh, fi tasu euh, na dañuy topp ki nga xam ne moo di paa lan moo xew Mbour wala ñi nga xam ne tey jii ni bëgg nañu ñëw loo leen wax ah xanaa ñun daw ñëw rek mun mënee gisanteeg paa bi ñu gisanteeg paa bi ndax paa bi moom yàlla may na ko waaw loolu rek la am lu may wax jaajëf Baye waaw taw jaajëf di Thier Thier euh, euh, ñu avancé waat rek dafa mel ni ni ma la ko waxee léegi rek euh, noo fi gisee ay mag ah blow meen yi waaw ñoom ñoom ñooy ñoom ñooy blow meenu mbuur yi Thier rek may bàyyi man ay ñoom mën nañ ne ay bëlaw meen lañu mais boo leen gisee rek xaw nañoo yaañu tu ñoom tamit dañoo ñëw topp si nga xam ne mën naa ne moo di kankuraay waa ji moom rasemi naag na nijaay maa lay nuyu ça va bien na ngay foo jógee man fi laa jógee ko Mbour fii sama daa turam waaw mais mais mais mais lu ngeen di dundee mbégte bi parce que tey jii bu ñu leen gisee ngeen def seen sañ say yaañi ñëw taxaw xool kankuraay ak daw yi da ngeen mooy loolu noonu yaa ma gën a xam ku xam mbuur moom xam ne mbuur moom septembre moom yaa ma gën a naw septembre lañ am mhm. bu jeexee nag jeex na waaw ah, comme d'habitude rek mais am na lu xew fii nii ndax du ñàkk ne ay secret ñi ngi fii euh, tey yow est ce que loolu mës nga cee dugg wala moo xew fii exactement ay secret gën a xam ay laas yu am yoon sangatoog yooyu noonu am na am na yu xew fii nii de ah moom bu dee secret moom kenn ku nit ku nekk ak lëlëfeen li rek am suñoo xamante ni tamit mhm. lu mel noonu moo leen fi andi mais am na suñoo xamante ni comme ambiance bi nii mbégte mi daal moo leen fi andi yooyu noonu yaa ma gën a xam. jaajëfati maam mais lii naaj na de. ok waaw yaa ngi si jàmm yaa gars yi. Cheikh doon naa leen de. Cheikh dafa mel ni am na euh, kankuraa bi ñëw Cheikh xoolal ma xale yi ñu dawee Cheikh Cheikh bul tiit tiil ma caméra bi Cheikh naa du selbe yow. <laughs> Cheikh da ngay daw. Cheikh da ngay daw. Cheikh da ngay daw. Cheikh da ngay daw. Ceere ngay daw ceere ngay daw ceer bul daw ah, a bàyyi ma daw ceer bul daw laay laay ceere na ko jaase ceer bul daw na ko la lan la jaase la ceer bul daw laay xool xale yu jigéen mais ah, neex na mbuur neex na nga jaase bi ah xool xale bi xale bu jigéen boobu taxaw waaw moom ah. ma ngay ma ngay tourné mais ceer ceer est-ce que doo wàññi tuuti wàcceel waa waa wàcceel wàcceel waaw waaw dañuy wàccee dañuy wàccee eh mi ngi noonu ceer mi ngi noonu ceer dawal bul dawal ceer dawal dawal gis nga loolu laa lay la laa Cheikh ma xale yi dañuy daw yow nee naa la mbuur a ngay neex ci Sénégal instant Cheikh xale yaa ngay daw Cheikh Cheikh yaa ngay daw Cheikh daa mel ni kankuraa bi jaar daa tàllal cër daa tàllal cër daa tàllal xale yaa ngay daw laa ilaaha illallaah mbuur lii mooy mbuur lii rek baax na lii rek lii am na ñoo xam ne lii moo leen fi andi après ñu ñibbiwaat cër lii man lii man man saa ni ma koy dundee dafa neex barke Sëriñ Tuubaa ma ko amul xale amul mag gis na ni dawee lépp li nga xam mooy kankuraan lii mooy mbuur anam anam anam anam anam anam anam waaw mel ni côté bi la jaar de. la ilaha cer. bu coupé cer bu moom la. cer camion la jaar. cer camion non non Thierno doo am problème. eh eh Adam. nee naa la lii daf may fàttali jamono président Ousmane Sonko bu ñu tuuri lekk ñu mos a nii. loolu lay fàttali kenn. Eh. Thierno yëkkati Thierno yëkkati. maman da ngay daw. maman looy daw. Ah, Thank you.